jërë ngeen jëf euh, mbokki xarit yi amati nañu mbégte ak contentement saa su nekk ni ñuy amee plaisir jano yéen ci seen télévision 7TV euh, gunge leen ci seen émission les ambianceurs émission bi leen di divertir gannaaw bu ngeen amee euh, journée bu saturée bu stressant wala journée bu ànd ak angoisse bu naa añee ba noppi toog leen ànd ak détente bu ko defee ñu sieste ak yéen 16h jàpp 17h Jantal Mara Alaaji Papa Ndiaye Thiou ak seen invité gunge leen ci ambiance bu inédit ñoo ngi bëggati Alaaji Papa Ndiaye maa ngi kontaan ci janooti ak yow. tey daal da nga wane ne daal da nga etewu daal. dafa tàng Papa Ndiaye. waaw li booy bi naan tàng na. dafa tàng. <laughs> il fait tellement ba nga xam ne doo bëgg a solo doo doo doo xam looy solo. waaw léegi nag xam nga dama am benn xarit bu nekk fii maam Thierno. waaw mu ne ma nii yàlla oyof na waaw. te da laa jàpp de. et puis man xam nga yàlla dafa doole maa gën a féete xale maa ëpp doole nu ko gars yi waxee. ba pare yaa jantal. waaw kay na nga ko tëj moo tax comme booy maa leen mën chaque jour dama woon sama fit sama osé. laal débatteur tey. ba nag ñun suñu émission xam nga on se prépare la tête de tronc et les quatre membres. déedéet ñun moom. <laughs> si c'est la détente Alaaji Papa Ndiaye. waaw noonu la demee def lu nu saf. tey nag ndeena ndeena ndeena lañu indi waaw ndeena moom mënul ñàkk ñëw ndax grand Boubacar dañoo nekk nekk bu nice ci Pape et te moom xam nga suma waay la moom suma waay la moom moom moom moom dafa yor ay ay goneem yor gone mi nag te xam nga nee na ci gone yi la bokk te xam naa ni tey moom dinañ déglu lu nice ndax nee na daa ñëw indi li ñu gën a bëgg ci artiste indi background bu nice waaw boo xoolee rek xam ni waaw kii ndaanaan la war a doon ba pare li ma li ma gën a neex ci moom comme comme Wally Seck la mel nag kon Papa Ndiaye comme Youssou Ndour artiste day njool jantal artiste day njool jantal waaw ba pare mën a joxe ndox mu seet <laughs> très bien alaaj Papa Ndiaye annoncé na couleur yi xale la ñu dalal boo xamante ni tey dina bokk ci découverte yi ñu def ci ambianceur xam nga ambianceur moom comme je le dis tout le temps moom mooy émission bi ñuy bi ñuy dem ci suuf puiser jëlee ci source bi yéegal ci kaw donc dina bari xale yoo xam ne fii la ñu fii la ñu jaar ngir wane seen. maanaa bàyyi di yërëm yeneen télé yi yeneen télé yi télé seytaane lañ dañuy xool artiste yu leen neex ñu leen fii comme que borom kër gi may mën a nduur nee na c'est pour tous les sénégalais ah. ici c'est pour tous les sénégalais ah, loolu dëgg amul am succès kii ah. la toog surtout boo amee talent nag dañuy sawar ci ci ci la parce que télé seytaane yi maanaa da wax ay waay bàyyi yow yaay premier seytaane nag foofu nga far <laughs> <laughs> sama xarit la mais yàlla baax na <laughs> euh, Ndéné la ñu dalal nekk xale boo xamante ni incha allah rabi li ñuy découvrir tey ci moom dina bari ci voix bu pétillante ci ci talent bi nekk ci moom waaye itam ci profil bi di ko Papa Ndiaye waxee c'est un artiste ah boo ko xoolee rek da xam ne c'est un artiste ci sañse bi c'est un plaisir frère ñu ñu dalal la ñu ngi lay nuyu waaye la nga nuyu ak sénégalais yi. macha allah le plaisir est euh, salaamaaleykum Mara maa ngi lay bëgg di la siyaare mhm. di bëggee sama grand Eh, di bëggee di nuyu waa tali bi waa télé bi ñu ma fekk ñëpp aussi. Mm-hmm. Eh, di nuyu Sénégal ñi seetaan et partout dans le monde j'espère que cette TV moom ñëpp a koy seetaan. waaye mm-hmm. am contentement bu baax di ci ci dalal bi vraiment vraiment waaye kontaan bu baax. mi ngi mm. dañuy bàyyi bu woon boppam sénégalais yi rek nuyonte ak ñoom. loolu wanaale bi boppam ñu nit waaw ñoom sénégalais kay lay boole woon di bopp. waaw <laughs> am na lu ne waaw parce que am na lu ñu ñam ci balance bi te xam naa ne itam am na lu ñu. jot a gëstu ci moom donc li ci des dañ koy bàyyi lu ñuy wax naan euh, devant les faits accomplis donc yow ak sénégalais yi yéen yéen a ngoog. jeex na ñu ngi noonu premier morceau premier allah léegi nag morceau bi ñuy jëm ni mu ñuy ubbee nii euh, ñu ñu ngi ciy way taalibe yi j'espère que ni gis ngeen ni ñuy dund ci mbedd mi ñoom. bi mm-hmm. ñuy ñëw la sànq rek daje nañu ak ñoom. Mm-hmm. donc may lancer appel ci sénégalais yëpp ñu bàyyi xel way wi. Massamba mm-hmm. macha allah. li metti na ndongal daara sonn na gisul ndey gisul baay booy metti na li metti na ndongal daara sonn na yaay sori na bàyyi sori ni sa doom soo ni sa doom dongo dara du nii yalwaanoo ndax ci mbedd mi ndey tumuranke lool tànku neen ci naaj bu tàng bi yére yu woyof lool lool lool ci ngelaw li foo ko fekk moom ndey koof ko di koof koofi ndax sedd bi sama xel sax du dal ci jéegim tëlli bi woo woo woo woo woo axalu oto yi sonn na gisul ndey gisul baay booy metti na def ko ni sa doom ndongol daara du sonni Ah, macha allah ci bu am solo morceau bu am solo. mais mm-hmm. am solo dafa jar leen di bàyyi xel ah ndongo daara taalibe yi ne ci tali bi. Mm-hmm. mbubb yi woyof ci sedd bi tànku neen ci naaj bu tàng bi mm-hmm. thème bi riche na Papa Ndiaye. man moom man moom damaa am choc ndax su ma génnee baaru mun yenn saa yi. booy yi toppale di ñaan ci 4 heures du ci koo xamante ni heure boobu ci lan la ko waroon fekk pour mu préparer xëy jàngi. nga ñëw wayal ma lii foofu laa nekkoon man bi ngay way. te parce que dama ciy xuloo boy yi. ñi ma àndal naan ma noonu Ndiaye ma ne nii xale warut heure bi da ko war a fekk muy dallu. vraiment vraiment kii dawul warul daw dépense. déedéet warul daw lu mu lekk ñi ko ñi ko jur ñoo ko war a yor. vraiment. parce que dañ leen koy laaj ëllëg. waajur bu ne nañ na laaj. sàmm la waajur ah. bu dee sàmm la sàmm la dëgg la. donc même waajur bii bu dee sàmm. wala mu dégage responsabilité am wala mu jël doom yóbbu ci daara ne dafa bëgg mu tarbiyu war na ci am suivi. di ko bàyyi xel wala sëriñ daara bi ñu dénk doom yi itam mu xam ne dañ koo jox ngir mu def ci moom xam way yii daal way yii daal ñoo ma gënal ay bandi baa ngi nii message yoo xam ne kenn xamul message lan la bi mu entamé thème morceau bi rek loolu dafa bokk ci li ma impressionné mhm. à ton nga nekk jeune mhm. sa ay moroom di yëgu ci musique mhm. gën a féete peut-être ci folklore wala comme ni ko Papa Ndiaye waxee euh, tey yow en tant que jeune lam moo lay inspiré pour nga évoquer ay thèmes waaw parce que c'est très important parce que je je pense que ne bu fekkente ne yow tu es chanteur. Mm-hmm. j'espère que ne am nga am nga ñoo war a waxal. Mm-hmm. vous boo nekkee chanteur am nga ñoo war a waxal léegi nag tu ne vas pas perdre ton temps. Mm-hmm. que ce temps boobu noonu. pour man nga war nga waxal ñi nga war a waxal. à travers ta musique. donc ñun ay messages la ñoo xam si dañoo war a véhiculer message yi. waaye man foofu déjà loolu sama moo nekk sama première euh, réaction. boobu. donc am na ñoo xam si fi toog ñu war a waxal donc ñun pourquoi pas yàlla def nañu ay donc dañuy véhiculer le message bi. pour que nit ñi di ci être la voix des sans voix. merci c'est ça. voilà waaye ah, na fi rek di di jaxase booy ñuy jamante rek. non non waaye léegi ku ñu gis day bandi bandi. waaw jëng parce que parce que li ñu war a fooyee. <laughs> nit mën nga way ci sa biir way. nga nax leen ba ñëw nga jaarale ci sa message. effectivement voilà mais tey mën naa way bande bi man. waaw mais nee naa la bande day sudisé day nangoo liggéey. day fonk ay waajuram. effectivement mais bande baa ngi nii xolal booy damay damay volé damay ah. jàmm xolal wayu la <laughs> du loolu. du loolu. de loo xamante ne da nga koy joxe ngir ëllëg boo fi jógee bu ñu ko tegee mu mën a rafet. très bien euh, la deuxième question Ndéné tey boo doon euh, defal benn brève euh, présentation. ci sénégalais bi lay seetaan tey. te xamul kat mooy Ndéné. lan nga koy un c' un élément bu nga xamante ne nii mu ngi jóge ba Kajoor Kébémer de passage ma leen di nuyu sama dëkk boobu waa Kébémer. Kébémer waaw allah waa Abdou sama yaay Aram macha allah et toute la famille. Mm-hmm. donc fa laa defee fa laa juddoo sama lépp. Mm-hmm. Euh, ak sama famille bon jàng nag ba am sama diplôme yu war a am. Mm-hmm. mais comme j' ah kon meloon na Papa Ndiaye. Mm, non non j' ai fait les bancs. <laughs> bàyyiwoo non faire les et avoir des diplômes. ak ah, avoir des Papa Ndiaye il a fait à Paris. à Paris surtout. am na diplôme bari trop tôt. loolu nga attanul yow. loolu laa mën dëgg man fi ma jàngee ñu bëri fa lañ jàngee fii ci ministère yi député yi. mais Pape dem na Sémou 2. Papa Ndiaye. waaw ah am na see am na see fa. kon def naa dix fois Sémou <laughs> bon mi ngi noonu am naa am naa sama diplôme bon. après nag ci laa ñëw Dakar ci si sama yaay bi ma jur. ok macha allah ma koy nuyu de passage yaay Roqe euh, Ndiaye. ñu ngi koy Roqe Sall Fatou bëgg ñu ñoom ci boppam ma dama nga jàngi musique. Mm. parce que nit ki doo bëgg dara rek. nii a dugg da ngay dem ko. lu a wan ne tey wan naa leen ni man bëgg naa ko. et puis ma santoon def naa ko jàng naa. Mm-hmm. man nag lii laa bëgg ñu dama ok y' a ñu bàyyi ma ci ma def formation du sec trois ans génn nag xam nga nekk ci sama sama sama sama sama sama sama yoonu bopp euh, am na samay nit ñoo xam si ne macha allah ñu may jàppale ci yoon bi sama premier single maa ngi ko def depuis 2016 c'était pour ma def ko sama carte d'identité ma way ko sargal jigéen ñi donc depuis lors aussi maa ngi ci studio di enregistré ay affaires yoo xamante ni bientôt rek danañ ko présenter Sénégalais yi parce que ay xale lañ l'avenir est devant nous. dara ñu yàkkamti dara. man de Mara bu dee Kébé merci sama fit baay dem. dégg sama oto banque doyen ñëwee ba léegi dëgg ah, delloo leen ma sama oto bi. <laughs> yéen a bon. <laughs> ah Kébémer dañ ko nangoo. laajal kii. non fan ko nangoo ah, invité nañ moom bu ñu paree autorité yi. Oh, autorité yi bu koy dégg moom mi dañ koy déddu ko foofu. non non non gars yi danañ ko dégg damay lancer message bi xanaa ah, sa oto bi boo demee fekk ko fa de. barke yàlla ñu ne Papa moom oto bi. barke rasulilah ngi fa ñu téye ah. nangu bilaay fa lañ ko nangoo. waaw ah, non waaye gis nga li ma yàlla def. non gis nga li yàlla defal. waaw gis nga li ma yàlla def. doomu kajoor a ngi nii. maa leen ko may jël leen seen kalandoo boobu jël leen ko. très dañuy demaat ci beneen morceau comme ni ñu koy defee. donc euh, ambianceur moom dañuy allier l'utile et l'agréable donc dañuy demaat ñu jëlaat beneen morceau Ndéné. waay. nga bëggalaat euh, téléspectateurs yi topp. ñu xool nu mu mënee. ayca voilà nee na yëngalal ñu xool noo mënee. waaw <laughs> ñoom dañuy bëgg di chaque jour rek lu ñuy lu ñuy lu ñuy joxe ci message rek bon day neex day ànd ak mélodie et puis. Mhm. Euh, nit ki da ciy jëlaale ay paroles ay jàngat. voilà c'est ça yoon euh, way bi nag mi ngi tudd yoon bi. yoon bi waaw. Samba. yoon waa ngi nii nii lay demee yoon waa ngi nii nii rekk lay tëddee waaw laay laay la doomu aadama ni ko yàlla buur bindee ku nekk sa bul jéegi ndey ak lay doomu aadama ni ko yàlla buur bi lee ku nekk sa bul jéggi lee ak baayo booy waajur dafa for moytul di am toor soo bëggee doon seen trésor bi laay Papa Ndiaye seede ma wajur dafa foor yow na nga moytu di am toor soo bëggee une vie en or waaw mara mara fa foor yow muy tuul di am toor soo bëggee doon seen trésor mbaa nga bëgg une vie en or doxee awa kuma jañ ma ne mi ci tengi naa toog sama yaay boyo yaay booy yaay gërëm naa la yaayu roqi daba yaayu aramook suleymaan yaayu maa jóob jigéenu amadu ba lay woo jigéenu Bamba Njaay jigéenu Abdu Siise Njaay yoon waa ngi nii nii lay tëddee yoon waa ngi nii nii rekk lay demee bilaay la yaa ngi naan tollu sa ndaw yow dox aayul te it sol nga sa dallu bay mu jot la nga war a xam ni mu matul loo sa bopp nga la bi nga màggee jéemal xam sa bopp yaayo booy ak baayo booy bilaay ah. teg nan la ci yoon boole lañu am ak lañ amul bilaay ngir ëllëg yow nga gën ci doom yi ngala bi nga màggee saawaay góoru góorul bañ a wàcc yoon sa ndaw papa Njaay doko aayul te it sol sa dal lu mu joot la nga war a xam ni moo matuloo sa bopp nga la bi nga màggee jëmal xam sa bopp yaayo booyi ak baayo booyi papa Njaay ah teg nan la yoon boole la ñu am maara ak lañ amul ngir ëllëg yow nga gën ci doom nga la bi nga màggee eh, saa waay góorgóorlu bañ a tollu sa ndaw ndoko aayul te it sol nga sa daalu mbay mu jot la nga war a xam ni moo matuloo sa bopp xala bi nga màggee jëmal xam sa bopp Cheikh Anta Faye sa yaay booy gërëm na la waawaaw sa baay booy ñaanal na bul tiit bul ragal nga naan ko ndooy maali maram ndooy borom amen collection du waak yoon jëlaatal ndooy maali maram ndooy sama yaay jee du waak yoon nga naan ko ndooy maali maram ndooy eh du waak yoon lay lay la laaw ah ah ratin Tabarkalla merci. il a il a il a son particulier. ba bariwul looy gis ci jeune lii léegi. ñuy wayte doo am foo leen koo leen koo leen méngale. daa ñëw indi boppam. dafa ñëw indi boppam. waaw man nag man nag man nag man nag fi ma jëm ak moom mooy. kan mooy sa idole. waaw man nag su ma nee waykat rek daanaka damaa bëgg tafaa Jarab yi. Jarab yi <laughs> waaw. waaw dama ko bëgg. bëgg nga ndaanaan. waaw bëgg naa ndaanaan ay wayam daf may fat je veux dire que la mu wax Serap Fall. waaw kay la mu wax Serap eh, jaara bi du sax géer nga wala géwél. waaw man mën naa ni ci ñaari yëpp laa bokk. wëy yaay waaw <laughs> ci biir wayam. Uh-huh. mu dugg foo xamante ni yow da xam ni. waaw gis daal boole na ma supp kànja. waaw da ngéwéle. waaw gis nga ndene àdduna la mi ngi noonu. mais ngéer a ngéwéle. sànq dafa wax lu am solo loo xam ni. fan yii yëpp dafa mel ne yàlla day seede wax ji barki dem ba léegi ñu ngi waxtaan mooy mm. jàng. Mm. xam nga gis ne métier bëgg ko baax na. Mm. mu nekk passion baax na mais dem gëstu ko itam dafa am solo. mais li ngay wax ni mooy problème Sénégal. xam nga mën ngaa nekk géwél sa papa Ndiaye doon woy am yaay ji woy wala nga mbaay buy woy. te lu tax nga mën a woy. waay wala nga mën a woyee la baax na nga mën a woy ci traditionnel mën ay mbaar ak mbëpp ak yooyu. mais baax na itam nga am ci moderne bi dara. Mara am yeneen technique vocale yu bokk. Mara mm-hmm. damaa màgg ba am 26 ans xaw ma 27 ans am soxna Angleterre dem. Mm-hmm. ma demee ñu ne ma am nga fi ay doom am nga fi adresse fii nga bokk. Mm-hmm. waaye da jàngi école. maanaam sixième maanaam xale buy doog a dem ñu ne la jàngi sixième. man ma toj réew mi am. fu ñu ne dem fu ne. ma ñëw ñu ne ma da ngay jàngi. Ah, parce que problème Sénégal. Mm-hmm. foofu la ne. Sénégal amul benn problème problème bi ñu am mooy. formation. formation effectivement effectivement. formation est-ce amuñu benn école formation waaw te est-ce que mi ngi dox ni mu war a doxee. donc gars yi dañuy taxale rek ñoo fa nekk. di taxale te loolu bu bari woon. tey booy doo gis kuy jooy ne du liggéey wala du def. non non non ci. gannaaw ko mën ñi mën batterie nan leen ubbi lay affaire ñu jàngal leen Gilles Diop wax na ko fii keroog ay académie ñi mën a guitare ñu jàngal leen jox leen ñi bëgg guitare ñu dem jàngi fa guitare ñi bëgg commerce ñu wax leen nan la ñi bëgg téer ñu wax leen nan la fii nga toog ni Jules Diop. Mhm. batteur comme grand bi. fii la toog wax ne moom bi mu ko bëggee papaam dana ko est-ce que am na école bu koy jàngale. dafa nga jàngi ko nit lu mu bëgg da koy jàng xam ci leneen. lu mu ci xamul woon. Mhm. waaye bëgg ñëw rek mel ni maaraat. <laughs> damay doon bëgg par la force. taa yi nga ko. Mhm. lépp lu doomu aadama bëgg dama nga jàng ji ko. dama nga jàng donte doo xam lépp sax am ci tuuti notion. c'est te xam nga ñun dañoo am benn problème Sénégal mooy suñu industrie musicale bu fekkee sax am nañu ko man je me dis Sénégal dañuy wax industrie musicale mais ci ay wax rek la yem. am nañ ko de. Ah, non amuñu ko am ñun amuñu. daa fay Talla Diagne la woon daa fay. amuñu ah, industrie eh, waaw non Talla Diagne. benn secteur bu privé la woon. secteur la woon. waaw non moom secteur privé la woon. secteur privé la woon boppam la doon liggéeyal. mooy da doon gis artiste. def ci moom alalam investir. xaar ay retombées effectivement mais bu ñu eh, industrie musicale mooy tey li Côte d'Ivoire di def. Mhm. wala li li li li Nigéria. Nigéria def waay. mooy di investir ci musique à ce yi koy def boo leen gisee du ngay xam ne ñii namuñu dara. namuñu dara effectivement. gis nga comprendre nga. loolu de ah nguur gi de ah. ah. moo tax bi ma déggee ñuy waale di wax waxi disque d'or gars yi naan da koy jënd ak da koy xuloo ma leen loolu dafa wane ne kon musique Sénégal dafa tardé. parce que am na ay pays yoo xamante ne ñoom taxawal nañ ay ay ay. ONG yoo xamante ne ñoom ci seen jëmmi bopp mën nañu organiser disque d'or wala mën nañu ci dugal seen loxo ba seen ay. wala ñu jàppale la en tant que doomu sénégalais ba nga am ko. Ah, yow yow amoo ba nga am ko effectivement. amoo sax label bu mën a yóbbu sa artiste mu dem jëri disque d'or. sa artiste xeex ba dem nga naan ay da koo jënd da koo kii nag bàyyi caa. en na trop vraiment artistes yi ñuy dund na trop. liggéeyuñu liggéeyuñu jàppale wu leen dara ci réew mi Sénégal nañ jàppale artistes yi. waaw ah, vraiment ah. surtout nag nan lañ jàppale. musique dañ ci war a mhm. fond mhm. mais gisuñu ko leen jàppale donc encore une fois mooy ñaanaat njiit yi ñu ñëw jàppale xale yi vraiment mhm. bëgg nañ moo tax mën a wóor buñ la jàppalee nga dem buñ la jàppalee waaw surtout nag mën a lu dara mais nag Mara fii ku fi ku fi dem nañ laa jàpp mais nag euh, Nene Mara artiste dem parce que boo toogee ne lépp dafay fekk si du sotti ku mel ne Alioune Sall ministre de la ñun dañ ñu fee teg pour yéen mhm. ñëw ñu partagé ngeen wax li leen metti ñu dugal ko ci kii ngeen indi projet yi ñu xool luñ mën a def ak luñ mënta def mais doo toog tamit nag man dañ ma war a fekk si rek mais ñëw artistes yi jóg pour dem te duñ leen leen gis man de ku ma woo man ma ñëw ngay dof dof lu gisuma la fii laay toogaat ne la yow ku <laughs> ba pare ñaareel bi mooy nit ki boo ko nee na ñëw. Mhm. da nga koy wax ban yoon lay jaar. ban yoon lay jaar dëgg la effectivement. c'est ça. mais buñ la invité li fi nekk ko moom nañ ko jël. te artistes yi mënuñu laa teg bët xamuñu fi ñuy jaar ba gis la. mais loolu problème la aussi mais Mara album bi. maa yow wax bientôt bientôt incha allah. bientôt xam nga ñun ñu ngi liggéey liggéey rek yàggatul dara. jot c'est sûr bien bien sama grand nga ni lay grand Boubacar waaw moom fowul moom fowul àndu àndu tak sax kuy fo. waaw moom fowul fowul. xam nga ko bu baax vraiment. Mhm. donc li ci des nañ ko bàyyi si loxo suñu borom. Mhm. yàlla moo tëddee yéen yi. incha allah dinañ jël soit léegi léegi ci mhm. plan de carrière bi Papa Ndiaye dugg na ci tey incha allah dinañ ci waxtaan loolu c'était juste benn brèche benn parenthèse bu ñu ubbi woon. pour jàppale suñu ay frères yi nga xamante ni ñoo yëngu ci musique. sonn nañ trop waaw ah. parce que Sénégal rek laa mais parce que dañ ne añ te duñu reer ndékki te duñu añ. nan wax li fi nekk dama ne. dëgg la damay eh, boo demee ay Côte d'Ivoire gii wala Nigéria mais seen artiste Baba Dia yow xam nga li ma la. yow pour yow pour yow yaram ñi yaram bu xel mu dal de biir yi leen li ñu añee di ko. li nga waroon naan nekk Sénégal. nee na xam nga lu ñu sonal sax la. non dëgg la sag moo ñu sonal sag moo ñu sonal vraiment. sutura rek Sëriñ Tuubaa yàlla yàlla yokk sutura. artiste bu amul biir yu baax. bu mel ne Pierre Talon ak Evignane. laay laay li laa wax nga sama gars yi ñooñu dañoo tax may dawal oto. mais wax na léegi. mais xoolal déedéet. mais géer yu baax la tamit. mais ñooñu rek ñoo la ci mën a génnaat. léegi gouvernement. non non non boo amul ay géer yu baax wala sama waaji waaw wala nga ay business yooyu sa bopp sa waa ji kan la ah dégg naa kan la comme faama boy la moom waaw boole ma ak moom waaw kooku mënta ñàkk ko seeni kalara Doro Gueye Doro Gueye macha ko ci way wi waaw macha allah ah, moom moom maa ngi doog a gis ku ne ci nguur woo ba mu jox ma ay million na ma téer door door rek gën jooro daal ndaanaan la mbére ñu demaat ci beneen morceau moom mm. nañ koy waxtaane galayaa bi rek waaw waxtaane galayaa bi rek daal di waxtaane daal di waxtaane amul maara an soota gambi ba sama tërkil gambi ba soota gambi jaay ko gaaka beneen da mooy nit ñi yaay sama oxygène waaw waaw I cannot live without you in my side sama oxygène waaw waaw I cannot live without you di lëmme sama xol a jaxase sama xel njaaxal na metti na waaye nangu na lii di lëmbe sama xol ah njaxase sama xel jaaxal na ma metti na waaye nangu na jaaral na ma gënal na ma oh yaay suma xool ah, ah, ah, baby ma arrosé suma teral la nga doose ma doose ñu doose yow mi may bégge asrino chéri xadi yow de dama lay safo as di la tiitaro waaye Idrissa Asmaan super génération super génération yéen lay yaay sama oxygène sens daf may asphyxier ngawal gaaw de présence ndax ma mën di respirer yaay sama oxygène na la leer ni

suñu demee ba mu lëndëm ba lépp ni selaw ah ndeysaan bii le confinement gënal na ma doro koy chéri kalaara dëgg dëgg jarama jomma ñaaweyi am nga diine man nga dorogore na mbokkam nañu papa Njaay Njaay Taala Bakar Koot Njaay Njaay Njaay Njaay Njaay Njaay Jaata Njaay way way nit ku baax doro gi am dine manu lool yaatu lool dëgg-dëgg gore na doro gi jëri ngo ne malo be sàmm kulli ma teete ngi naa jaaja sa baay le professeur Lamanooy la jeunesse sénégalaise vous salue vous salue bàyyi le professeur Lamanooy la jeunesse sénégalaise Bouzali Bouzali ndeysaan gàkk jogo maay ngand ma ca booleel mbar ma dëtteeg yaay ma jëjee ma jaxaawu ma jaasin batoor beautiful ci dollar ndeysaan Rokhaya Sall Fatou Mag singal awa kumba jaan maa ne mi ci tengi ndaat day ma woy sama yaay jigéenu Bamba Njaay e jigéenu Papa Njaay jigéenu Birima doomu dayu Faatu Njaay doomu dayu Kuna Njaay mooy rakku rakku Aram Njaay doomu dayu Faatu Njaay doomu dayu Ndey Njaay jigéenu Bamba Njaay Bamba Chéri Xadi Jang eh jigéenu Papa Ndiaye Papa Ndiaye bayu ma jop Ndiaye Papa Ndiaye chéri ummi jenge sama yaay way naa tout cas bi moo ngi fi Papa Ndiaye. ndeysaan voix bi moo ngi te bi particulier na. yenn saa yi mu def technique yu ma yëm de mais mais affaire yi ku koy bind. bon affaire yi je suis avec un ami ndeysaan bu ñuy wax Goro Diop ma koy nuyu de passage. Mhm. ñuy toog di échange andoo. des fois nga nelaw ba guddi rek xam nga waykat bëri xit affaire yi affaire yi ñëw sa bopp. Ah, parce que rim yi rim saa yi nga dégg rim bu naay. waaw merci beaucoup ah, waaw gis nga la demee <laughs> ça veut dire dañuy liggéey rek. moo am solo. <laughs> waaw dafa am solo moo a wóor. effectivement am na technique yu naaj looy def ba pare bu la kenn nax. Mhm. gis nga mii Sénégal ku la ko yombal da lay nax. dëgg la bind yombul. am it defar mhm. morceau ba mu nekk it yombul. effectivement ku la ko ku la ko nax. dëgg la ah liggéey rek. dëgg la pousse ko. dëgg la lu ci war a jàpp jàpp ci. dëgg la effectivement. macha allah euh, l' émission tire à sa fin léegi ñu jeexal. Mhm. juste da ngay ñëw ak ñun ci. Euh, projet yeeg yëf yi. projet yi fu mu toll. actuellement ci lan ngeen nekk yaa ngi waajal single yaa ngi waajal album est-ce que am na bërëb boo nekk di fa yëngu lu mel ne ci ay after work ak yooyu. Mhm. parce que maa ngi gis ku mel ni Diaw Diop. Mhm. dafay ci hôtel yi. ak yeneen jeunes yu bari yoo xamante ni. yéen a maase te façon musique bi ngay def ni ñoom itam ni ngi koy doxale comme ni nga koy doxale est-ce am na ay resto wala hôtel yoo xamante ni démarché nga ko pour liggéey ak ñoom ci côté waaw bien sûr bien sûr parce que déjà avec mon manager mon grand Boubacar mhm. donc ñu ngi ci démarche boobu. c'est un grand manager ah. waaw un grand manager. vraiment après un bat un batteur aussi. c'est un homme de l'ombre. c'est la première fois ma xam nga ni morceau yu moom moom moo <laughs> li tax ma ne c'est un grand kay am na lu ma jàng. dëgg la dëgg la macha allah. c'est un grand c'est un maestro. c'est un maestro c'est un grand vraiment. c'est un maestro mu comprendre lu bari ci musique bi nag aussi. Mm-hmm. donc vraiment am yéene trop bëgg ma teg ci code. teg ma ci yoon. donc yàlla yàlla mottali yéen a. amiin yaa rabbi neex ngaa teg ci kon nag parce que jantal. da ah, dégg nga ah dégg papa. <laughs> Ah, ngi baax daal. mu ngi baax de te day ah, gën a baax dama yàgg suivre nag de. a boo nee na rek baax na. non day a baax kon jeex na. booy kebe mer nga doog waaw noonu la demee nag. <laughs> <laughs> voilà ñu ngi ci démarche yu macha allah vraiment am na ay bërëb yu bari yoo xam si ni bientôt rek dinañ fa commencé di liggéey ak ay after ay after work ay comme musique douce ay acoustique xam nga ak beneen xeetu musique du tey aussi ñu ngi organiser ay soirée waaw ci ay yenn bërëb au niveau de Yoff ici ay Sunset la Payotte xam nga ay Bella Rimini ma nekk ci rond point Yoff bi donc di waajal tamit benn concert bu ngandee boo xam si ñu ko bëgg a defee au niveau de Yoff encom euh, euh, accompagné ci jeunes Yoff yëpp donc Nord Foire Ouest Foire ma leen di nuyu de passage sama mbokk lébu yi vraiment ñu ngi koy waajal foofu ci rond point bi bu mag lu ngande lay doon bu defee ñu partager ko ensemble. amul en même temps ah non non dañu nekk di liggéey ci suuf rek. c'est bien vraiment léegi en même temps ñu ngi waajal benn single bientôt incha allah mu génn aussi au fële ca bes je mm. donc mu nekk moom tamit daanaan liggéeykat vraiment bientôt rek incha allah ñu ngi am benn affaire bu ñu fay defar ak yeneen yeneen affaire yoo xam ne comme album bi parce que album nag yombul. c'est pas facile Pape dëgg la wala. ci jamono ji ah, <laughs> donc li ñu mën daal tant soit ñu ngi koy def ci yoon bi. waaw ah, noonu yàlla yàlla suñu borom di samay di samay nit di leen gërëm aussi di leen sant wala gërëm jotagul. ba gërëmal defal la saf sa émission la. très bien la saf ngay def. kon très bien pare ñu a ak beneen morceau. mi ngi noonu ba waa waa super génération bu Géejawaay Madio Stros Bonamu sëriñ Bamba. vraiment Anthiou Sarr ah Jules. maa leen di bëggee bu baax a baax a baax sama champion bi mbër Rambo maa ngi lay bëggee bu baax a baax encore une fois Rambo waaw champion la min nan seetaan waaw bu njëkk ba <laughs> sa copain macha allah di nuyu Awa Bari di ko nuyu de sama si sa borom Casablanca ah Cheikh Anta Faye Birame ñaka yande Ndiaye mon ami mon frère maa ngi lay bu baax a baax a baax a baax. Mm. Ah, di nuyu aussi mami borom Maroc. doomu ndeyu mama jatu ak Natacha Rasoul ak Kia ah Kia Ndiaye ak Pa Moussa doomu ndeyu Pa Moussa Aydara vraiment ak mais nee na yaa ngi def de. waaw c'est c'est normal parce que xam nga ñi jàpp waaw gërëmu mbër ndeysaan <laughs> mbër ñi yow ma yem. dañoo nekk ñu ngi nekk ci côté <laughs> mi ngi noonu. vraiment ak euh, maa ngi nuyu aussi. Euh, maam Fatou di ko wax happy birthday euh, chéri Boy Diop madame Diop macha allah di di di yaayu Chérif euh, maa ngi koy nuyu bu baax yaayu Serigne macha allah maam Fatou. Mm-hmm. jigéenu Lamzo. ma lay nuyu bu baax a baax a baax a baax. maire mm-hmm. Aram Ndiaye chéri Jibili borom Brescia. mi ngi noonu waaw voilà di sama waa kër aussi. boo boo limee doo juum mais mën ngaa fàtte. c'est ça. waaw man ma gërëm sama grand bi rek grand Boubacar. ndax moo tax ma xamante ak suma frère Ndene mu ñëw tamit defi lu nice di naanaan ne ci yoon wi waaye di leen wax ni suba Cheikh mu sëñ Babacar borom Pikine moom it dana teew ci yëf yi boobu moom mooy ambiance. macha allah Cheikh wax ni ah, a mën a way ak a la di gërëm sama rakk ji nga xam ni kongaas bi la toog def lu doy waar. Kule sa waay moom ku ko topp rek. Massamba waaw Massamba wuyu la <laughs> kontaan nañu merci. grand booba ma lay bëggee bu baax. Alaaji Mara jërëjëf Kule Mbaye merci beaucoup. jërëjëf Papa Ndiaye Ba sama papa maa ngi lay bëggee bu baax ñu ñëwee leneen mooy tàggoo tëjee beneen euh, morceau. xam naa ne mhm. trois minutes moo ñuy dese jàpp quatre. day gàtt rek mais mënul ñàkk donc remercier nañu téléspectateurs yi ñu doon topp yëpp ambianceur moom euh, mën naa wax léegi dafa mujjee doon doom ci ay téléspectateurs am parce que dañ koy toppatoo comme ni ñu toppatoo doom su yeexee commencé sax téléspectateurs yi woon xool ci la ñu leen donc bëgg nañu téléspectateurs yi ñuy topp waa Mauritanie ñi ngi wéy di ñu bàyyi xel Aziz Dabala suñu frère mi ngi fa tey ci boîte boobu ñuy wax Atlantique fas yéene fa amal euh, soirée sénégalaise donc ñu koy ñaanal ren Euh, Pagaay Mbaye euh, samedi incha allah rabbi ma nga ca gaynde waaw démb Pagaay Mbaye mi toogoon fi kii ko. Pagaay club gaynde incha allah euh, samedi lay doon. dogo bu yàlla ñu ngi fay jox gars rendez-vous. ay ca ñu tëj ak. neex na dogo bu suba nag mooy dernier dernier numéro. wóyli wóyli la ñuy dalal. Ngoyobe mu toj. Cheikh mu Serigne Babacar mu tëj ñu dem ci ñu ñu dem beneen semaine ayca ça a été un kontaan waaye maa leen gën a kontaan les Mara grand merci à ak Papa Ndiaye aussi vraiment ak sunu réalisateur yi vraiment macha allah kontaan bu baax morceau bi nag mi ngi tudd sargal jigéen waaw ñu ci sargal jigéen ñi. nañ leen sargal ko waaw parce que man damaa damaa toogee côté boobu. waaw <laughs> bi deuxième partie bi. ok y' a si. nee na mbaaru da ngaa <laughs> jar ngeen a delloo njukkal yéen jigéen ndax jigéen mooy sunu yaay seen jàmbaar ak seen am jama tax na tey fu taxaw jigéen taxaw ba jar ngeen a delloo njukkal yéen jigéen ndax jigéen mooy sunu yaay soppu na ma leen yee jigéen ndax jigéen ñee ñooy sunu yaay jigéen ñi ndax jigéen ñoom ñu ni déedéet loolu anu ñu cee waaw waaw nampal moo ñu teete moo ñu yaar mënu toll nii sa yaay moo nampal moo teete ku ci bëgg sa yaay way we yaa ko moom ngeen jaaraama am ngeen jaaraama am ngeen jaaraama am ngeen jaaraama am ngeen jaaraama am ngeen jaaraama am ngeen jaaraama am ngeen jaaraama jigéen kuy jigéen way we yaa ko moom